bis bi moom li ko sabab mooy benn association la quoi yu cent pour cent Kër Massar quoi ay ndaw ay doomu Kër masaar yu ko taxawal waaw du doon mbëbët xam nga rek jàppale litteeru Kër Massar yi waaw biñ ko fonde nag yàggul far yàlla nag am lu ñëw dal suñ kaw muy feebar bi coronavirus bi léegi nag jeune Kër masaar yëpp defoon mobilisation ànd ko ak suñ musale maire quoi

feebar bi nga xamante ni ñu jëlee ko fi si lu mu gën a gaawee daal waaw moo taxoon nag liñ bëroon indi yëpp ñu indi ko si hôpital bi quoi xawoon na jafe tuuti nag quoi parce que bu dee ay ndaw yoo xamante ni la dañooy dañuy soog a jug quoi di soog a débuté seen doole demeewul noonu quoi mais nag sant yàlla quoi parce que tamit ku si mel ni monsieur le maire bi bàyyiwuñu ginnaaw bi ñu si waxtaanee ak moom da koo rafetlu jël ay ndimbal tam teg ko suñu loxo quoi am na tam yeneen autorité yoo xamante ni am na tam lu ñu jàppale si si si si lii nii quoi parce que tey ñoom ñoo bëggoon a génn def ko mais tey itam bu ñu gisee ñoo xamante ni dañuy génn defal leen loolu ñoom tam dañ koy rafetlu bu baax daal. sant yàlla parce que liñ bëggoon lépp lépp lépp carrément amuñ ko quoi mais nag am na si loo xamante ni itam ñu ngi koy sante yàlla bu baax parce que tam dañ bëggoon génn ku si mel ni dem estation station Kër Massar sensibiliser leen jël li nga xamante ni jox leen ko mais comme suñ doolee matewu ko. léegi li nga xamante ni ñun moom lañ yoroo as tuut ak li ñu musale maire jàppale comme que hôpital bi moom lañ fi am te képp koo xamante ni dara dalaa dal fi lañ lay indi ñu ne li liñ ñun li ñu yor nañ ko ñëw jàppale leen ko ba pare tam di soññaat autorité Kër Massar lépp lu waaye di jàppale rek nañ ko indil fii si hôpitalu Kër Massar. waaw association bi maanaam occupé wu ma benn poste parce que amagul euh, bureau bañ ko sosee yàggul waaw mais mun naa ne ñëpp ñooy jàppandoo quoi fu waaye fu moroomam nekk rek fu sa fu sa morom nekk rek. Euh, maanaam mun nga fa am secours quoi koo xamante day ñëw taxawula jàppale la ba mu sosoo yàggul nag quoi moo tax amagul bureau faraguñu lenn quoi moo tax autorités yi nekk Kër Massar am na ñu bari ñoo xamante ne nii euh, jàpp nañ ci jàpp nañ ci ci côté financement jàppale nañ bu baax a baax a baax loolu moo waral xëy na lii yëpp taxaw parce que tamit feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya xam nga gars yi jàpp nañ ci doolal nañ ñu ñun tamit euh, fekk fi tamit li nga xamante ne nii mooy feebar bi di mbas mi xam nga ñu naan ko Covid 19 tamit gars yi bëgg ñëw tey pour sensibiliser tey nit ñi waxtaan ak ñoom ñëw fi nga xamante ne mooy hôpitalu Kër Massar tey bëgg ñëw tey waxtaan ak médecins yi am loo xamante ne te dañuy ñëw tey jébbal leen ko ci li nga xamante ne mooy xeex mi ñu bokk ak ñoom xeex euh, li nga xamante ne mooy feebar bi. ñu ci séntu woon tamit euh, mën naa ne tey euh, ñu ngi sant sant nañ ci yàlla bu baax a baax ba ñu demee ba taxaw monsieur le maire tey waxtaan ak moom xam nga mu sas ñu tamit mën naa ne sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax lépp nag mooy muy feebar bi rek jóge fi instant bi loolu moo fi nekk gum ci loolu la ñuy dox ba yàlla def saafara feebar bi nga xamante ne moo fi nekk mu jóge fi leneen li nga xamante ne nag mooy association bi 100 pour cent bi nag ci mu war a dox bu feebar bi na ñëpp dinañ xam ni carrément lii moo ko tax a jóg yemunu ci campagne bi euh, euh, maanaam yemul rek ci li nga xamante ne moo di làmb football basket lépp li nga xamante ne sport la ci Kër Massar jeunes di ci nekk rek ñun dañ ciy dox lépp lépp lépp ñi ngi ci quoi du question làmb la mais làmb ko tax a jóg waaw pour jël euh, làmb gox bi suqali ko ba mu jëm ba ca kanam looloo ko tax a jóg. tey jii ku nekk xam na li xew ci dëkk bi combat bi gën a ngand combat bi gën a ngand tey jii nii moom lañ jàkkaarloo muy coronavirus ñi pare pour xeex ak moom mënoon nañ dëkk Kër nag tey nekk xale yam tey ji nii lii day am ñu toog jàpp suñu njàmbur wala leneen ak leneen liñ fi indi matul dara mais suñu fukki dërëm suñu juróomi dërëm ak ay kilifa yi nga dem nañ fa ñu dimbalee ñu ku mel ne Assane Diallo ku mel ne Moustapha Mbeng jàpp ci bu baax a baax a baax ñëw tey moo tax lii ñu indi nii tey matul dara xeeb nañ ko nag bëgguñu ko woon sax bind xeeb nañ ko tey ñi ñëw ci docteur Bouna mi nga xamante ni tey jii nii Kër Massar yaakaar naa ne ñun ñi ñëpp xam nañ la nga nekk fi def liggéey bu taxaw hôpital bi li war ci hôpital bi ndaxte ñun ñëpp ku nekk yaa ngi fi jaar ku nekk yaa ngi fi ñëw vraiment loolu moom moo tax ñëw fi di la sant di la gërëm di wax ne def nañ suñu participation lii nii ci hôpital bi xam ne amoon nañ yéene bu ëpp lii ay jeunes lañ nag ay xale lañ lepp lo soxla ci hôpital bi té mu lér na la ñun mën nañ ko yow woñu nekkul ci li rek lañ yem lepp lo soxla ci hôpital bi nga mu lér na la ñun mën nañ ko woñu vraiment kontaan nañ trop di gërëm ñi ci Drogba di gërëm mbër Drogba yeen ñëpp ñi ngi leen di gërëm di gërëm gaay yi ndax té li rafet na trop mënon ngeen yor seen ñeenti dërëm wuti fenen fo lo ko duggal mais li dafa rafet li jihad la li dafa rafet kontaan nañ trop di leen gërëm yeen ñëpp vraiment kontaan nañ trop di gërëm Tafa Mbeng bu baax a baax di gërëm Assane Diallo bu baax a ñoom ñoo ci jàpp tey ñi ci jàpp faw ñu wax ko ba ñëpp ko jërëjëf ba docteur Bouré ñu ngi gërëm. guddal rek parce que liggéey bi chargé wu nag malade yaa ngi toog si couloir yi mais sa rafetlu sa liggéey nag xamuñu la mais ñoo ngi dégg si malade yi fiy jaar ak ñi fiy ñëw assistant yi li ñuy wax ci yow. moo tax ñu rafetlu ko bi ñu yoree loo xam ne nag matewul ñu wër Kër saar di ko joxe ñu ne nañ dem fi nga xam ne ku feebar fa nga jëm lu mu tuut tuuti même bu doon benn saabu ñu yobbu ko fa mu ñu xamne jox nañ ko fi mata jox parce que tay karo yi laaj na set poani buntu yi laaj na set lepp laaj na set kon nañ wut eau de javel ak gel yi dem yóbbul ko ko comme matewul dekk bi yëpp mais suñu idée tay mbeuru lamb yi nek keur Massar ak écrit yëpp ño dajalo nek ben nek 100 keur Massar di xex ben xex tay di beure ben combat bo xamne moy combat bi nga xamne mo jara daan nak li ñuy bëre si làmb ja jarul daan de combat bi jara daan moy fexé ba sa morom du loru fexé ba sa morom du dee tey si lañ taxaw ñun ñëpp ñëw indi li ñu am jox la ko ñun ñu weññeeku sol suñu teset dugg si askan bi par ñaar ñaar di sensibiliser di leen wax lan lañ war a mel nan lañ war a comporter woo nan lañ war a laver loxo yi lan lañ war a laal ak lan lañ war a moytu ak fan lañ war a moytu loolu moo ñu tax a jug moo tax ñu ñëwoon si yow ñëwaat nag une deuxième fois pour dolleeku nga digalaat ñu li ñuy def pour bu ñu demee ñu gën ko mën wax doomu aadama yi loolu rek moo nekkoon taxawaayu écrit yi nekk Kër Massar yëpp ñoo ngi fii diggante ñàkkurab Tivaouane Pël euh, jaxay boun suufu montagne Malika ci bopam ak parcel Assainies kermassar ak kermassar village aladi paté sotrak ñëpp tay écrit nek kermassar Kër Massar ñoo ngi fi. jërë ngeen jëf xam nga nit ki mom su la défalé lo xamantene yow mënuloo ko sa bopp jëf rek nga mën wax bi ngeen def ni geste bu rafet la su ngeen indoon benn morso saabu sax yéene bi mot na parce que li ngeen def nii boo indee benn morceau saabu keneen indi benn morceau saabu keneen indi benn morceau saabu dina bëri lim bi dina bëri loolu moo tax ñun lu ñuy seet surtout mooy geste bi maanaam yéene bi vraiment moom yéene bi moom mot na bu doon kuy dem màkk la nga yor sa paas waaj a dem dem au dernier mënatoo dem yéene bi mot na dem nga parce que yéene bi mot na euh, ñoo ngi ci kontaan bu baax di rafetlu seen taxawaay ni nag boo nekkee ab jeune nga nekk ci gox am na taxawaay boo war a am mooy li ngeen def nii taxawaay surtout ci wàllum santé je pense que léegi. ren jii ni ñëpp xam nañu njëriñu santé parce que benn problème bu ndaw problème de santé mu ngi nara a tas àdduna bi benn doomu jangoro bo xamantene bo amul microscope électronique mënoo ko gis bu jaxasee aduna bi yëpp waxuma rek réew mi aduna bi yëpp la jaxase problème de santé la ci santé la jóge léegi nekk na problème socio économique nekkatul problème santé rek léegi fu mu nekk nii yeneen problème la indi indi hif, indi mar indi jaxaso lolou motax tax gu yaram am waram solo motax it yeen liñu mëna liñu liñu liñu liñu li def rek moy jaajeufal leen rafetlu encore une fois geste bi ngeen def gis nañ vraiment sen sen taxaway te amna yaakar né ne réew mi bu ñëpp defoon ni yeen réew mi dina jëm kanam kenn ku ne fi nga nek nga def ce petit geste mooy loo xamante ne lu amal njëriñ askan bi la di këram ñëpp surtout yéen ñi nga xamante ne ay ndaw la ay ndaw ngeen vraiment yal na leen yàlla fay waaw jërë ngeen jëf voilà jërëjëf. merci. Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi 100 euh, pour cent Kër Massar baa ngi nii waa léegi euh, saa dañu laaj 100 pour cent bi lu ko waral. waaw comme ni ko gaa yi waxee rek sànq ci kii bi 100 pour cent moom li ko taxoon a jóg bi mu jóg commencement bi mooy jàppale booru Kër Massar bi ñu ci waxtaanee gars yi mobilisé wu ku mel ni Bira xam ku ci mel ni Bira euh, taxaw pour loolu taxaw. bi ñu ci waxtaanee grand frère yi nga xam ñooy ba ñu ne war na mën a nekk 100 pour cent Kër Massar yàlla def euh, bi ñu ko taxawalee. feebar bi ñëw loolu waale ci. ñu ne pourquoi cent pour cent bi bañ a waxagum ci làmb wax ci li nga xamante ne tey moom mooy feebaru fi nekk parce que bu fi feebar jógul làmb da am mhm. parce que tëj nañ li nga xamante ne mooy wàllu yëpp ci àdduna wàllu ndaje tëj nañ ko. Mhm. kon 100 pour cent bi pas mu njëkk. mooy xeex corona bi. Mhm. xeex corona bi nag du joxe set rek. Mhm. wala sol ci set wala raxas. non waxtaan ak askan bi la. surtout sa kër gi nga xam ne fa nga jógee. danga war a waxtaan ak ñoom génn ci mbir waxtaan ak ñoom. kon tey yaakaar naa ne looloo war a 100 pour cent bi mais à part là de loolu ba pare bu ñu ci mu jógee fi incha allah li ñu ñor mooy Kër Massar. champion yi nga xamante ñu mel ni Drogba Seyde gars yi ñëpp ay mbër lañ. te maire da wax sànq dañoo war am roi des arènes ñun Yékini gëmuñu ko parce que kër la fi am mais ba am keneen noonu keneen noonu mais ñi nga xam ne fii leen dëkk juddoo fi màgg fi yaroo fi ñoom a nekk roi des arènes Kër Massar ñun nag pour liggéey ku ñëw jàppale ñu dañuy liggéey ku ñu liggéey mobilisation bi li ko waral euh, moom mooy cent pour cent bi ñu taxawal fii ci Kër Massar au niveau de Kër Massar loolu moo waral mobilisation bi seulement dafa tombe ci benn affaire boo xamante ne moom moo lëmb adduna bi te ñun ñu am ci wàll pour mën koo combattre waaw def cee tombe tombe nag dañu ne en général mooy waral ay gaaf comprendre nga euh, benn structure la boo xamante ne booy ñoo ko créé cent pour cent Kër Massar lañ teg bëgg mu jëm kanam mu tombe ci affaire boo xamante ne moo lëmb réew bi comme ni ma la ko waxee wax dëgg yàlla te ñun ñu am ci wàll war koo mën a xeex pour mu jóge fii ci Sénégal fii mu dugg nii war nañ koo xeex pour mu dugg fii. ci tank yoy lañ nek yakarna naa ne mo waral mobilisation bi mobilisation bi du lenen, luddul lolu ñu ngi ñaan yalla tamit wax deug yalla yalla bi nga xamante dara teewu ko euh, yalla gaaw ko fay jëlee wax deug yalla ñu ngi koy ñaan yalla di gërëm bu baax wax dëgg yàlla euh, kilifa bi ñuy wax Assane Diallo promoteur immobilier la wax deug yalla ñu ngi koy sant diko ko def na ci lim ci wara def maire de la commune de Kër tamit mustapha mbeng wax deug yalla japp na ci japp na ci wax dëgg yàlla nit booy dugg ci dëkk da nga war a jaaree ci bunt ba ci moom lañ njëkk a jaaree moom mooy buntu Kër Massar jaar nañ ci moom wax dëgg yàlla def na ci li nga xamante moom la ci war a def def na ko bonne volonté yi nekk Kër Massar tamit ku nekk def nga ci sa alal moo tax ñu nar tey pour dugg Kër Massar vraiment jéem a sensibiliser nit ñi ci affaire bi nga xamante ne moom moo lëmb réew mi ñu mën a moytu bu baax ni nga xamante ne noonu la ko médecins yi waxee ak waa état bi ndax ñu mën koo moytoo noonu ñu jël masque yi di jël distance yi bien vrai li ñu def ni téré nañ ko mais dafa nek lo xamante man mënta ñàkk il faut mu am mais il faut ñu jégué jegewante pour mëna wax li nga xamante mom lañu wara wax muy message bi nga xamante mom lañu wara lancer wax dëgg yàlla wa Sénégal ñëpp dégg ko en tant que Drogba lutteur vraiment ma ngi sensibiliser ñëpp ñi nga xamante ñom ñu ngi ci Sénégal képp ko xamante yaangi fi nga mëna respecter consignes yi nga xamante mom la médecin joxé ndax ñu mëna mucc ci affaire bi loolu mo war mobilisation bi. merci beaucoup Drogba bu ngeen xexé corona bi ba paré mbaru Kër Massar sen taxaway nan la ci lamb ci sen taxaway xana jëm ci kanam jëm ci kanam dan Kër Massar comme niñ ko waxee sànq fale ci maire ba dañu war ab roi des arènes man gëm nako man man. man man papa Man, man man naa nekk roi des arènes pourquoi pas man nako nek mais dafa am lo xamantene mo ngi ci ginaaw tout rek moy boy bi souligné souligné na legui fi, moy affaireu jappale bi man 12 combat la beure ñaari défaite la am palmarès bobu yaaka na palmarès bu baax la kon ni waron dama fekk fu sori mais manque dette bi mom mom manqué ba nga xamantene yegguñu fuñu wara a yegg mais ci katanu yalla ak affaire bi ñu taxawal ni ñun suñu bop 100 bi suñu bop man nañu jappalé suñu bop 100 pour autant l'aide de personne ñun lool lañu mbebet lool lañu bëgg ci katanu yalla inshallah allah dina am bu soobé yalla merci fi nek ñep man nañ koo nekk Drogba man na koo nekk booy yi sama ginaaw man nañ ko nek lu koy maye lu koy maye. lu gëm sa bop xam nañu loolu man mii xam naa loolu am na lu bari loo xamante mu ngi ñuy xaar liggéey gëm sa bopp mais pour l'instant nii pour combattre coronavirus moom mooy actualité ñun ci loolu lañ nekk. merci beaucoup merci beaucoup. ginnaaw bu ñu sant yàlla jël ci yonent bi sant suñu waajur di muslu ci coronavirus di wax onsu billahi minal coronavirus yàlla noonu yàlla musal ci moom yàlla na ko fi yàlla dàq seppi ko nu dégg sànni ca xaj waaw loolu laay nuyoo. xam moo tax laa ji du ma ci dugg ak yow mais naa si ñam tuuti da ngaa tardé nag ci miir mi lan moo xew foo demoon. dama tardé ci. yéex waaw noon dama am ci lu ma nekkoon ci beneen sensibilisation laa nekkoon noonu xam nga yee gars yi waxtaan ak ñoom parce que tamit yëf yi comme ni ñuy bëgg a ëpp doole buñ mën dañoo war a boole suñu doole nu ñu war a boole suñu doole mooy déglu ndigal bàyyi tere yi te nekk ci conseil yi dox ci daal jàppale autorités yi nekk ci secteur yi. waaw te yàlla rek tax ba lii passé quoi parce que newatul affaire politique lii léegi léegi léegi nañ gagné Sénégal feebar bi jóge fi moo fi nekk mais fii laa far kee fee far amatul du amatul écrit yi amatul dara nañ sensibiliser ñëpp bokk ndey bokk baay xool nan lañ koy xeexee pour mu jógee fi waaw. ànd xeex mu jógee fi. loolu moo war a nekk suñu yitte euh, ñun ñëpp ci laay woo ñëpp euh, dama doon dem fekk suma doomu ndey Drogba et ñoom Pape Diop suma champion yu taxaw fi. kon mënu maa def lu dul taxaw ànd ak ñoom ci xeex bi parce que feneen fu ma dem fekk ko fay taxaw wax ci li ma mën a wax sensibiliser nit ñi parce que ñun comme bu ñu waxee ñenn ñi dégg ñu war nañ mun a dimbale ñenn ñi pour jottali leen seen suñuy wax. bu ñu xeexee coronavirus ba mu jeex ba jógee fi abal ñu ba du fi amati benn trace Bébé Saloum fu mu jëm. waaw fi ma ma dëgmaloon rek muy bëgg doon li ma bëgg doon rek muy doon champion ci Sénégal xaw naa koo doon sax nag daa matagul rek waaw. fekk nga yokk yi waaw dañ ci nekk ah dañ ci nekk fi mu toll nii moom kenn talu entraînement coronavirus bi. bañ naa ko ba ne la buñ ko xeexee ba mu jeex ba corona jeex. bébé Saloum fu mu jëm. bu fi jógee kay ku ne xam na li la koy may dañ ci ne rek bu fi jógee rek ñu ne ci. ma bàyyi woon nga ko. waaw parce que coronavirus bee tax rek. waaw corona moo tax nga da ngaa tiit ba daas. non naa man moom ragaluma damaa gëm yàlla man taal bi suñu Abdou Karim laa nee naa la ku dul naar ba ca Ndindi yéemoo ma coronavirus bi yéemu ma de dama ciy waxtaan ak jaam ñi rek mais yéemu ma dama am tawxiit gëm yàlla wóolu ko su ma ci waree dee man dama ciy dee bu ci keneen waree dee da ciy dee am na ñoo xam mënu leen dal te dañuy wéraat yàlla bu dal kenn ñi jot dal yàlla nañu wér rek mais ragaluma coronavirus ah. couvre-feu bi rek cinq heures ma dugg sama kër bañ a génn su ma amee lu mun te ñàkk lu ma mën a doxi dinaa ko doxi ji quoi mais lu mën a ñàkk ba mën a ñàkk cinq heures may fekk sama biir kër ma toog ak suma njaboot waaw di ñaan yàlla Sénégal jàmm rek moo fi xaj quoi parce que ñun xamuñ tëju quoi te buñ mettre en quarantaine bi may dégg ñu ñuy bëgg a def buñ ko defee waxuma laa coronavirus waaye corona crime mooy am corona crime mooy am de lu leer laal la am na ñoo xam ne buñ génnut duñ mën a am luñ jox seen. corona crime wala corona xiif. non bi mooy buñ xiifee crime mu rek te nit ku ñuul daa ragal police nit ku ñuul daa ragal police boo nee police yaa ngi bëgg nañu dóora duñ génn bu ñu amul luñ lekk nu ñuy def nañ ñaan yàlla affaire bi jóge fi rek ak ñu mettre gars yi ko yeyoo ñi ko yelloo nag laa ñu jox leen ndimbal li mais ndimbali day génn ñu def ko tubay paate képp ci boole bii bukki bi njur bi sàmm bu mu demee noonu nañ ko jox ñi ko yeyoo te ñaan feebar bu génn fi ñu tijji jàkke yi ndax li ñooy am ci marché am ci feneen kat mun na nekk ci jàkke yi ñu ñaan yàlla mu tijji ko jàkke yi ñu tëj ma rafetlu ma ko wax dëgg yàlla. waaw mais ñu mettre ko am ñu ñu am luñ ci calculé ñu wax ni nañ ko nañ ko ñu moderniser ko rek parce que comme marché yaa ngi ubbi oto yi ñu ngi ciy dugg moog jàkka jooy toog benn 30 minutes julli ñooy am te julli nag mooy wàllu jullit quoi mooy ñaan yàlla yàlla mun ñu dimbali mais tëj jàkka yi ubbi yeneen bagage yi moom wóorul wóolu ma ko de man. merci beaucoup jërëjëf.